Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. nga doo gant doo gënalee ana soppe Sëriñ Mansour Diouf yàgg fi te muy dayaatu rek yaakaari ñëpp nga doo gant doo gënalee jàmbaari lislaam muy dayaatu

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبي نجلين دي نوي بباح إيه، تي كادوك السلام عليكم دي لين زيارة دي لين بالو أخ تي بمناسبة آه، احتلال ولا تعظيم مجل توبة نجلين تي ندوكي البباح احتراما للشيخ وتعظيما وتبجيلا لأمره آه، من هذه المحصولات المكسوبات والأجور الكثيرة الجزيلة الواردة من عند ربه رضي الله عنه ألا وهو الشيخ أحمد بن خادم رسول سرين بما mayam yu rëy أغلم أم تمبايكو ديغنتي مكبرامم te mu amee ko ci tukub géej gii ñu di leen nuyoo fii ci keur Cheikh Mansour Diouf mom Serigne Fallou Mbacké mom Serigne Souhaïbou fi ci Touba ci màggalu Touba muy le 27 tey di euh, samedi le 27 octobre 2018 bés bi day bés bu reuy Serigne bi nak leppam dako bind leppam dako bind amul dara lu ñuy lay. ludul ne sëñ bi dañ ko moom dafa layel bopam dafa wax ni wa adkhala al ilahu fi qulubi man tasabbabu fi naqlihi zaaka zaman ikhrajahu ila al bilad bilaadi na'iya wa naala fiha fawqa sam isariya lako sabab nak moy mooy yawm yowma sabti 18 li khidmati al mukhtar fi sahri safar في سهر سفر من دار التي بنيتها في أرض جلف بعدما أتني براءة أمير النار الذي جرى بيني وبينه ما جرى من الخضر sëñ bi ne génn naa bésub gaawo sama kër gi nga xam ne maa ngi ko samp ci suufas mbakki baari jolof fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar baax dama atat nii gannaaw ba ma dikkalee barawatu amiri ndar ka ñuy wax gouverneur um ndar allasi jara bay nii wa bay na hoo maa jara minal xadar ka nga xam ne ab dogal ba tukkee ci sama borom moo tax li dox sama digganteeg moom dox ci foo loolu nag moo mu wax ni yàlla moo dogalit wa adxalal ilaahu fi qulubi man tasababu fi naqlihi zaka zaman ixraajahu ila al bilaadi naiya wa naala fiha fawqa sam'i saariya nee yàlla dogal ci xoli ñi nga xam ne sabab ñu yóbbu ma ci géej gi nee na ci déggu raw déggu saariya mu waxaat feneen ni sayyarani ila albilaadi naiya wa qaada li fiiha muxjila sam isaariya ba tey nee na yàlla sange sama mbir ñoŋol ko ba tubaab bi yóbbu na ma ci réew yu sori waaye jëlee naa ca lu raw déggug saariya loolu yëpp day màndargaal ak demam ak ak ci géej gi sëriñ bi liggéey liggéey bu rëy mu metti lool ci ñu tumurankeel ko moom kot moom dong lépp lu am ñu jël ko nangu ci mom ba tax mu wax ne xosóoree khalat wal ahlu anni tafarraqat li madhi allazi anhu lmadihu te texale nañ ma ak sama njaboot texale ma ak sama keur ngir bëgg gi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu waxon ne ubayyu al ar rasul al mustafa bi khidmatin wa asalullah al wafa axaqu jumlatil al wara bil khidma bin nadmi wan nasri نبينا رسول rahma ki gën gën a yàlla ci nga xam ne moom lañ war a jaayanteel nee na mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal ni yonent boobu nag baayaatuhu fi l bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawlil fajara nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gu ko bëgg ak jaayante guma ma jaayante ak moom tax na bi ma demee ci bahru maa yomba garab ga yonent bi jaayante woon ak sahaaba yi mooy inna allazina yubaayi'uunaka innama yubaayi'uuna allaha yadullahi fawqa aydihim garab googe tubaa indil ma ko ci gi ma jaayant ak rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam la koy firndeel mooy bayit yu ma wax léegi sëñ bi daj ci coono yu metti sëriñ bi rey nañ ko lu mat ñaar téeméeri yoon ak juróom ñett fukki yoon ak juróom rey nañ ko sëñ bi mucc te lu ci nag rek mën nañ cee indi bayit wuy firndeel na rey nañ ko te yàlla musal ko benn wax na ni wahaba lil wahaabi fi sulaasa ma yux jëlul asrata wa sulaasa yàlla may na ma ci bésub talaata lu gàcceel fukki nit ak ñaar yi ma bëggoon a rey ak seen commandant mooy fukk ak ñett sëriñ biit wax na ne sànni nañ ko ci géej ngir bëgg ma faatu loolu moo mooy tolloog oman yulqini fi l bahri rawman li gurbati fa zaadani min ilahi rawdu fi kulli aylami ku may bu ci géej ngir bëgg ma faatu nee na fekk na sunu borom tàggatal na ma lépp ba nga xam ne lu nekk rek yàlla tàggatal na ma ko ba mu nooy léegi coono yooyu nag ak njariñ li ak lim ci am ba ñibbi si jotee mu war a ñibbi si mu def juróom-ñetti at eh, ak juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer mu war a delluwaat ci réew ma sunu borom Sëriñ Tuubaa lam ko ñaan rek mooy ijal rujuhi ila xawmi saadatana wal takfina yawma jam al xalqi niiraana sunu borom maa lay ñaan bu ma delluwaatee ci réew ma képp kuy dund ci diine lislaam na nga ko fegal njaxare yi bés penc muy yomal xiyam kon loolu mooy sunu texe loolu moom la ñaanal réew mi yëpp ak julit yëpp yàlla dogal ci barkeb ab tukkeem ñëpp mucc ëllëg yomal xiyam te ku ne ak mucc nga bëgg tukki boobu nag da doon tukki boo xam ne jenn jëmm attanu ko lu dul jëmmam ndax nattu yi jëmmam dong la yàlla dogal moo ko attan loolu nag moom moo ko waxal boppam dafa wax ni aataani allahu fi ruuxi wa fi badani maa laa yura li siwa zaati bila tuhami nee na yàlla may na ma ci sama ruu ak sama jëmm loo xam ne maa laa yura li siwa zaati jeneen jëmm judul man Sëñ Tuubaa mu du ko attan mukk man ko attan bila tuhami te nee na loolu ma wax tuuma lu ma kenn waxuma ay tuuma kon nag moom képp koo xam ne bëgg nga mbiram wala mbiram neex la baa mu saf la màggal gii dangay wax lu ca jëm ak di sant yàlla di santale Sëriñ Tuubaa yàlla ci may yéema ko ci may ndax bi mu dellusee jóge ci géej gi dañ ko woo fii ci gouvernance Ndakaaru 1924 Sëriñ Tuubaa ñëwaat na fii ci Ndakaaru waaye bés bu njëkk ba mu njëkkee ñëw wàcc 11 novembre 1902 tubaab bi dañ koo laaj ne ko nag léegi dañoo bëggoon xool nañ la biir ak biti waaye xam nañ ne gëm yàlla ak liggéeyal ko ak bëgg yonent bi rek moo ne ci yow léegi képp ko xamné bokul ci yow dang nu koy wax ñu jàpp ko te yow ñu bayila ak sa ñuñ serigne touba kérok la wax ni inni abduhu khadimun lin nabii naawiya nafi aqrabin wa ajnabi man jaam yàlla la tay liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jëriñ itam képp ko xamné bëgg na ma ba ma bañ ma ko jege ak ko sori serigne touba ne na ñëpp la fassiyene jëriñ li moy serigne touba li moy mbirum touba al alxaqu min rabbikum faman shaa fal yu'min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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تحبل منا قتم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الشهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تحير أو زيادة أو نقصان أو تهويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيه اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان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 ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان اللهم أكرمه بلقائك يا ديان اللهم أكرمهم بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب أمومنا وقائدنا وصائحنا إلى جنتك جنات النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة وضليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وأمن من الجوع والخوف بلدنا السنغال وصائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما خرهناه وبركات ما طلبناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائحنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم بلل صواب ما خرهناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك ابن عبدك ومتك شيخ أحمد بامبا اللهم أوصل صواب ذلك إليه واجعل له نورا يسعى بين يديه اللهم أكرم به مقامه ويسر به حسابه وضاعف به صوابه واجعل للرحيح المختوم شرابه اللهم أنس وحدته وارحم قربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاصعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت قلت وحولك الحق ادعوني أستجب لكم وأنت قلت وحولك الحق فإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان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 ëll si jaraa bay nii wa bay na xaw jaraa melal xadar kon tukkeem boobu nga xam ne moom la demoon muy bésu gaawo tey jii ba ilaa yawmal xiyaamati saa bu bés bu dellu seetee yiw lay doon ak ngëneel ak jàmm ak tawféex ñuy sant yàlla di bernde di jàng alxuraan di jàng xasida kon luñ amati ci bénéfice ci jaamoo ko yàlla c'est grâce à Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaari jàmm nan bokk wax jërëjëfu Serigne Touba nañ bokk wax jëri jëfi serigne Touba bis bi moy sunu lepp kon nañ ci fas sunu lepp sunu mucc ak sunu taxé bis bi lañ ko amé kon ñu ngi bayyi jànkite xaside yi ñu doxal yor yor bi nañ ko daan doxalé lepp fu mu daan jaar ci barke ak yiw ak ngëneel yar na fa jaar ci barkeb serigne Touba te lepp doon ngëneel ak tawfeex ak barke fukki kamil ak juróom xamna naa day japp defena témèr bu manké ben 99 lay doon bu soobee yalla mna ci yakar yalla ni ci yalla def ngeenel ak yiw ak barke te yit day asmaul asmaulahul husna juróom ñeen fukki turi yalla ak juróom-ñeent na lay toll buñ ko dëxëñee ci ben baatu sunu borom bi tuddu salihu mom lay japp kon yalla sunu borom defal ngeenel ak tawfiq lepp doon aw yiwu sotti ko ci rew mi sotti ko ci continent bi yep yalla yalla defal barke Cheikh Amadou Bamba hadi rasul yakari jamni Rosa